Uras Info Ribari Gao. Uras Info l'info à temps réel Uras Info jàngat du notre force le traitement de l'info ay weer ngi la ñàng mi demul dikkul. toog nañu ñetti at bougé wuñu. bras ci diggante gouvernement bu Sénégal ak syndicat bi ëmb jàngalekat yi. tax na ñoom jàngalekat yi gannaaw bu ñu dajee gouvernement bu wu ñu ba nëgë ni. tax ñu taral xeex bi yebal ay délégation ci réew mi lépp fi la ci diwaanu Ndar Géej njiital CELSA di Abdou Faté bokk ci G5 xam la ne seen boolu muñukaay fees na ne ñetti at a ngile ñoo ngi ne tekk di teewlu gouvernement bi. ko ñu alerté ko mu bañ mais ñu yëg ko ñun nag fii la ñu nekk ñii muy yokkal ñu diplôme yu ñu am la ñu am dañu am ay maîtrise ñu am ay maîtrise am ay licence ñu am ko. ñoom jàngalekat yi daal di xam la ne léeg-léeg ñu dégg ne. seen lim daa takku. bu nu ñuy wax nag da ngeen bari moo tax duñu leen yokkal loolu ñu ko fi. te moo ne de état baa ngi yokkal ñeneen ci yeneeni koor. teewul laataa ñu yegg fii fépp. jébbaloon nañu gouvernement bi bataaxalu artu mu saañ ay noppam. ñu wax leen ñu jekkiwuñu ñu defal leen waxtaan ñu bañ ñu ne leen ñu bañ waaw léegi ñun lii rek amuñu pexe lii rek la ñuy def parce que mënuñu nekk ci école yi sunu dara doyul du ñu jàngale di croiser les bras démotiver nañ ko xeex benn yoon. ànd ak loolu lépp bu ñu grévé ci public bi di xar matt ci privé bi ñu ci ànd ba mukk nguur gi du jël xaalisam ak état bi yéen ñii ñëpp jël seen impôt ñuy fay jàngalekat mu bàyyi ko fa. di dem école privée tëj école bi kooku moom ko fa def nañ ko ñëpp dénoncé kooku moom kenn àndook moom kooku moom d'accord ñu ko. waaye nag ni ñoo ngi dégg g ak G2 ana lu waral seen xaajaloo bile Abdou Fatine li waral li lépp moo ngi tukkee ci wàllu indemnité de logement. li tere ñu déggoo euh, ay euh, doxalin la principe la également ñun dañ ne ñun ñuy njaboote bari na njabootewuñu rek moyen secondaire. mais dañu njaboote moyen secondaire njaboote inspecteurs yi njaboote élémentaire ba case des tout wante sunu camarades yële ñom euh, li gën tax sax déggoowuñu moy liñ nane indemnité de logement bi ñoom dañuy indemnité de logement nako professeur professeurs yi amé ni yenen yi am yu eh, eh, maître yu ndaw yi am Abdou Faty njiital CELSA daal di xamle ne soixante milliards yi gouvernement bi tak ay radio diko ko fune la ca gannaaw deug la ne buñu défé sen calcul matul lenn notre position par rapport à cette conjoncture actuelle où l'État du Sénégal dit avoir injecté 69 milliards pour les enseignants et ne comprend pas notre attitude. C'est le moment de partager avec les camarades pour dire que les 69 milliards, à la limite, c'est de l'arnaque. Parce que naturellement, après calcul, au gain final, on ne se retrouve pas avec 50 000 francs. tout euh, le salaire naturellement est pris par les impôts. C'est inadmissible. Donc il faudrait rétablir la vérité pour qu'effectivement qu'on ne bluffe pas le Sénégal et le contribuable, pour dire qu'on a mis l'argent du contribuable euh, chez les enseignants et constater au finish que les enseignants n'ont pas 40 000 francs. C'est inadmissible. URAS Info, Ribari Gao. URAS Info, l'info à temps réel. URAS Info. Djanga du notre force, le traitement de l'info.